ca xur sës ca seen kër amoon na ñax mu naata naat waaye ngir ñu àgg ca faw ñu jéggi benn pom te ca suufu pom ba aw rab wu soxora soxor te xiif lool ba lu ko romb mu lekk ko dafa dëkkoon